salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Ndakaaru Oumy Seck jeune actrice la bu dëkk HLM 5 waaw juddoo fi yaroo fi màggee fi di di nuyu samay samay samay yaay di nuyu sama maam bu jigéen di nuyu samay famille bopp samay famille biir kër sama famille wàllu baay sama famille wàllu baay di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp Oumy Seck noonu jeune artiste rek waa defaguma dara nag ci aar bi parce que def naa ay trajet liggéey naa waa GP ne liggéeyal naa waa Daaray le liggéey naa waa Kambel production aussi waaw aar bi lum ñu may nag aar bi mayaguñu dara dañ ko bëgg rek te sunu borom képp tax aar bi tabaxuñu kër ndax aar soluñu or ndax aar ñun ñoo bëggal aar suñu bopp te suñu borom képp te xam naa loolu lépp dina ñëw après. waa projet yi bëri na projet bi bëri na Mori booy seet yow mi sax yow ci aar bi nga bokk parce que ñun ñu ngi nekk xale doon jàngee Kër Fari Parcelles Assainies suñu activité culturelle yow yaa ko yoroon kon xam nga xaw nañoo yàgg ci aar suñu projet ci aar bi nag mooy meeru HLM tonto Pape Seck parce que centre culturel HLM mi ngi nii amul benn activité tonton yi mi ngi fi ñun ñi ngi fi am na ay xale aussi yoo xamante ni dañoo bëgg aar te ñi ngi ci koñ bi ñi ngi koy fowee di ko café di ko ree pourquoi pas nga jox ñu ñun ñun ñi nga xamante ne ay xale lañu nga jox ñu centre culturel bi ñu fay def suñu répétition yi chaque samedi wala chaque dimanche loolu moom ñu ngi la koy ñaan très sincèrement waaw coronavirus muy feebar bu daanu suñu kaw muy feebar bu daanu ci àdduna muy feebar bu daanu ci bépp xeet ñuy ñaan yàlla ñun waa Sénégal nañ leen respecté condition yi nga xamante ne moom lañ ñu digal muy nañ leen raxasu nañ leen toog suñu biir kër yi nañ leen toog suñu biir kër yi raxasu ah, di masalu tamit tonton Mody c'était pas la question loolu du woon question bi di masalu sumbulu bàcc li def na erreur de communication baalu na dañ leen ko jéggal te suñu borom képp tax parce que juum day am ñun ay kaw-kaw lañu man kaw-kaw bu mag laa maa ngi jóge Tiwaawan jóge Joal kon ñun ñëpp Sénégal àdduna bi yëpp ay kaw kaw lañ du ma Sénégal dama naan àdduna bi yëpp parce que tey bu ñu ne woon Dakar gi na ñëpp ñibbi amaana ñu fi des du bëri est-ce que sax dina am ñu fiy des tonton Mody waaw tonton Mody corona mesure bi mooy ñu toog suñu kër yi rek ñun ñi nga xamante ne ñooy actrices yi jeune talent yi aussi ñu def ay ay petit sketch yu ndaw aussi ñu def ay petit sketch yu ndaw tamit waaw parce que loolu tam ci sensibilisation bi la bokk nit ñi la fait que ñuy gis sketch yi muy daw le fait que ñu koy gis di ko seetaan di ko seetaan seen xel dina gën a ñëw te aussi tam day dindi stress parce que tëju daa metti de il faut ñu ñuy seetaan ñuy reetaan seen stress di dañ waaw mesure yooyu moom bëgg naa ko loolu waaw ñi may setaan ci HLM Vision maa ngi leen di wax ngir yàlla toog leen seen kër wax nañ ko ci soose wax nañ ko ci joolaa comme man tamit toog leen seen kër mën naa ko wax ci olof toog leen seen kër restez chez vous français ngi noonu yeneen làkk yi nag ñu ngi koy wax dee leen nañ leen toog suñu kër di raxasu nag di raxas loxo yi ba mu set président tamit wan na nu ñuy raxasee loxo yi nañ leen ko raxas ba mu set toog ci biir kër gi nañ leen toog ci biir kër yi kër yi dina neex dina xumb waaw tonton moo di di di gërëm sama maam bu jigéen Coumba Daaga Fall di ko gërëm di ko gërëm di ko gërëm di gërëm sama yaay di gërëm sama famille yëpp bu ma limee damay juum waaye gërëm bi maa ngi koy teg ci loxoy Kumba Daaga sama maam bi ndax lépp moom la Fall ndeen ak dàkku loo dund doyul yàlla na la yàlla bàyyi suñu kanam bañ lay weer di la weeri jël naa nuyoo bi teg ko ci loxoom mu jottalil ma ko ñëpp ñëpp ñu nekk ndar ñi nekk dëkk bi yëpp na ma ko sama maam jotee teg ci tonton Modou di di la gërëm yow ndax fàtte faj xaju fi te xale du fàtte man ak yow ci kër fari la woon Parcelles muy tonton Daouda buñ ñëw yaa ñu doon defaral suñu suñu culturel yi ngay woy ñuy topp sa ginnaaw kon fàtte xaju fi tey nag nga dox ak waa HLM Vision indi sa kamera ñëw ba ci man kon amaana am na li ngay séentu ci man ci waa ci HLM gii nii yàlla na ko suñu borom mm, yeggali te bu boobaa dañ la koy tegaat yow si sa loxo yow nga doxal boo doxalee ñu topp sa ginnaaw ndax yàgg nga ci aar bi te aar bi tam war na laa may lu bari ndax ba nga jàppee ba tey bàyyi woon di gërëm tam sa caméraman bu ñaawul bi waaw maa ngi koy gërëm moom tamit bu baax ndax caméra dafa metti coupé collé metti na loolu maa ngi lay nuyu yow tamit di la jaajëfal bu baax a baax a baax a baax